الحمد للحق المبين من كونه لي يبين بنت dan dundé ginnaw laquk mamor anta sali serigne bi nak diiru li way juram jema def mba moy dindi dara matu won rek top topin wu rafet ba melni neew bu nek ci loxoy ka koy sang Da continuer nek ci la mu nekkoon di jang ka jàngale di rob atak lu top booba sëriñ bi ci jàngale rek la donga ya fa nekkon nit am jang rek leen fa bayyi won waaye loolu yépp nag teewul lanu seetlu won ci sëriñ moy sa saa ma ngay gëstu xam-xami gaay yu baax ya di nit yalla ya bëgg lo won ko futti ko ba set wecc ci lépp lu dul jëm ci yalla la soppé won li ñaan siyaha muy di wër ci kaw suuf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 ci atum 1294 hijriya wara tollok 1876 ginaaw bi nak ci le tënkaat khassida gogo wayat ko tuddé ko mën wër biri sudur ci jamono yoy yit ci la talif téré bi di jasbatu sikhar ak jawharu nafis bi nga xamné ci la wayon wessaru imam al yi bi nga xamé ne nag sëriñ bi def na déclaration bob ba nopi ba talibé ya and ak mom ci la mbeggon té depo ci ak ñom ci la len dal di yégué len ci mbirum jang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 rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars nee na bi sallallahu alayhi wa sallam dane sa dong yi na leen yar ci yitti ju jëm ca yàlla te bu leen yar ci njàngaleem kese Cheikh Mouhamadou Lamine mu ne lii ko kilifa googu wax boo ko xoolee ci yenn xaside yi sax di ca gis bay ju koy gën a leeral ndax am na fu may waxee naan wa min ajaaib ibni abdillahi sala alayhi bisalaamillahi باخ أضاء أرضه بالأولياء إلى القيامة وكل وليا سنته وصانها عن بدع تبشيره خديمه بفصدع أمره صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه بأن يعلم المريدين ومن يقبل منه النصح من أهل الزمن وأنه أوصله عن تخلية لربه مبشرا بتحليه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 neena na képp ku aju ci man mucc nga ci nax-naxi àdduna ak yooyu alaxira faaza muridun xaadahu llahu ila taalluqin biya wa yaxda bil ila yaxda muridun lam yamalla minni bima bihi yaxuusu xayra manni yaxda muridun laa zabi bima yafuux ma dannahu billahi jaariya rafiix kullu muridin bi yaluusu yasaadu wa innahu min al azaa mubaadu li man bi yatacallaqa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 وكل من لم يتأدب زمن على يدي شيخ فيلقى محنا لأن من عدم شيخا مرشدا فشيخه الشيطان حيث خصدا فالشيخ لا يخالف المشفع فمن نحى أمر المرب انتفع فحيثما أمرك المربي فامتثل الأمر تصل لربي وحيثما نحاك عن شيء فلا تمله وعن رضا لا تغفله من أبمر ab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 الصدق في محبة الشيخ أبد ثم امتثال أمره حيث ورد وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطن عليه فيما قد رووا ومعه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات من ملو مر murid نينتلا ñeent la dama ko way fii nag ngir bañ taalibe bi waru mba nga jappé ko té ko kooka doonu ko moo tax sëriñ bi néna lool loolu tax ma way ko ngir bañ waru gogou di dal talibé bi melo yoy nak ba ca ñëk moy deggu ci bëgg sab sëriñ ba ca top moy di jëfé ay ndigalam tey bayyi térem ñetteel ba moy moytu di ngat sab sëriñ ci lu mëna a doon di ngatu xol wala xel la sax tere nañ ko talibé bi ñentel bi ci mujj moy rafet ci sëriñ bayé ko sa bop té baña am ak tan ci dara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 bari nelaw ak sàggan ci tuddu yàlla juróom ben yi dal ñoy kira yi do murid bi ba do ag ci boromam mu ne ni la ko Cheikh Ahmad tijan waxe ci jawahirul maani walil hijab sittatun min al usul wa qat'uha haqqun liman rama al usul qul kasratul akli wa sharab thumma lsharaab baraya ملاخاة البرايا بالصحاب وكثرة الكلام كثرة المنام وغفلة عن ذكر ربنا السلام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 bi nga xamee nak serigne Touba amna ndigalul tarbiya ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam rek dafa dal di taxaw temm rek ci weyel ndigal lolu yoon mu awon ak ñom nak moy di len tagat ci ñeme ab xif ak nango liggey lool ak zikar baatub la ilaha illallah lu bari ak farlu ci jang xasida te lepp nak dañ ci daan boole sax ci ak lat di daw nit ñi bu baaxa baax rawati na jigen ni li motax bañ di kawé ñom ñepp ku dul ñom ndax ñom ya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 mooy werdu Chazeliou bi nga xam ne Serigne Touba yoroon na ko ndax Serigne bi ci boppam bind na ni jëloon na werdu Chazeliou lu jiitu muy dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko koy jox jox gu yees waaye nag waxuñu ñëwoon ci kan la jëlee woon werdu bi. mu ne li taxoon kaadi nettali ma lii nag mooy moom kaadi daal ñëwoon jébbalu ci Serigne bu mag bi bi mu jébbaloo Serigne bi joxaat ko werdu yu jox gu yees booba nag ci laa ko ne ko ndax xam nga ko joxoon Serigne Touba werdu Chazeliou mu ne ma.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 dang ko forcer ci mu nan nan mi te bëgg ko na nan ñu bëggoon xam li nga def do ci jublu cheikh baba ne len li tax mu forcer ko ci de moy mom serigne touba mi day ko xamne da sonal bakkanam ak di ko mettital ba mujj lolu nek adam lolu nak motax ma bëgg mu ak adam def li nga xamne bakkanam ko te li ko def lo kat da ko yok mu gëna a rek sëñ mat lamin ne lii dal wala lu melni mom la cheikh baba tontu won dongaya